natangé mbokk yi euh, tey la le 5 du jeudi 5 janvier 2022 23 euh, waxtu bi ñu nek pratiquement 11h et demi jot na ca Ndakaaru ak li ko wër ah comme ni ngeen ko xamé sa su ne Kéwoulo mu leen di euh, fétaliwaat li nga xam ne mooy kóllëreem Kéwoulo leen di ñaanal sunu borom mu defal leen jàmm ju bari bari bari bari mbokk yi euh, at bu bees bi commencé na ak ay tiis yu doy waar événement yoo xam ne yu doy waar fii ci Sénégal gannaaw bu yenn tiis yi commencé woon depuis mois de décembre gis nañ ni conséquences yi ba léegi ñu ngi koy dund li ñu leen di indil tey euh, lu doy waar la loo xam ne mu ngi xewee ci quartier bi ñuy wax Thianda Fall nga xam ne dafa bokk ci euh, Tivaouane ndaw kéwlo yi dem nañ fa seet la fa xew parce que euh, la fa xew mu ngi commencé dépasser tous les entendements ndax benn xale bu ndaw bu góor boo xam ne ñetti at la am di tudd euh, di wuyu ci turu euh, Bamba moom lañu ñu gis ni euh, il y a quelques ci weer wi ñu génn mu disparaître xale bu ñetti at bi ñu koy seetee ba mu yàgg ñu daal di fekk ni dañ ko sànni ci biir teel ñetti fan gannaaw bi ñu ko doon seet ba pare mu di tiis boo xam ne famille bi di ko jooy pareegunu Euh, il y a quatre jours encore ñu gis ni ki nga de ne magam bu jigéen bu tudd soxna juróom at du euh, moins soxna euh, juróom at moom la ñu ñu rey ñaari xale yu bokk ndey ak nekkoon ak seen maam ñoom kenn ki ñu fekkoon ko gannaaw bu mu disparaître ñu koy lu mat ñetti fan ñu daal di ko fekk ci biir ki nga ne magam bu moom la ñu fekk ñeenti fan ci ginnaaw ñu fekk ñu jamati ko ay paaka mu dee ah, lu doy waar la loo xam ne ah, foofu ci Tundaga mii nuñu ko masuñu woon a gis fitna ju mel nii tax na bu fekkee ni ñu bëri xalaat nañ ni ay ah, peut-être piste crapuleuse la ñu xalaat ñenn ñi xalaat nañu ni mën na nekk règlement de compte tax na tey piste euh, règlement de compte boobu la ñu privilégié moom ñu ni police ba na loxo kenn ne euh, la ci yi seen euh, seen magu seen magu papa soxnaam wala seen papa soxnaam moom la ñëpp joxoon baaraamu ba soxna soosu nga ne garde à vue fële ca commissariat yu Tivaouane xalaat nañu ni moom moo war a mën a rey ñaari xale yi euh, amaguñu benn élément scientifique amaguñu benn élément probant bi wane ni moom la mais baaraamu tuumaa yi yëpp moom lañ ko joxoon tax na euh, di ñaawlu euh, lu mel noonu événement bu mel noonu exécution bu fekkee ne exécution la bu mel noonu nga xam ne victime yi duñu ñenn lu dul ay xale yu ndaw a ndaw ndaw yoo xam ne wax dëgg yàlla bu fekkee ne mag ñi am na nañu seeni problème bu ñu réglé xale yu ndaw yooyu war nañ ci mën a éviter ñu gis ni de plus en plus depuis la xewoon fële ca Touba mooy xale yooyu euh, nga xam ne finalement seen bàyyi la ñu mujjee teg loxo ba ki nga xam ne mooy góor gi puy bi doon jéem a venger aussi jabaram jël ay soxnaam euh, fay ci soxnaam jël doom yi rey leen ci Sénégal

la fa xew lu doy la euh, benn ku jigéen ku tudd Awa Mbacké Awa Mbacké moo jote ak ki nga xam ne mooy frère jëkkëram parce que ci waxu furno jox ma furno ma dem naani ataaya ci loolu doon jote waa ji nangu furno bi di dem waa yi euh, Amadou Sadio la tudd jël furno bi di dem ki nga xam ne mooy Awa Mbacké woon ko ginnaaw jël kuur fëgg ko ci bopp bi am na lu ñuy wax kaawu dëggu am na coup yoo xam ne nit ki bu ko nu mu dëgër dëgër dëgër buñ ko ko dóoree dafay jeexal dafay nekk kaw mais dina dox léeg-léeg sax nga gis nit ñu dóor ko yenn dóor yi mu nekk di waxtu fekk dem na soxna si ñaareelaat coup bi ci information yi nga xam ne kii wu jot na si mu daal di këyëng këyëng yi daanu bi mu daanoo ñu seet ko euh, woo ki nga xam ne mooy infirmier bi di Barthélemy Kadiali yi mu ñëw xool ko. gis ni kii dee na bu ñu nekkee ci cadre bu mel noonu meurtre la ñuy wax parce que amul préméditation préméditation mooy loo xam ne yaa ko pare loolu na na ngay rey nga rey parce que rey boo xam ne waajaloon nga ko mooy euh, assassinat mais rey boo xam ne waajaloo ko meurtre la wax homicide involontaire léegi nag li ci doy waar mooy ki nga xam ne moom mooy infirmier ki nga xam ne xam na li ñu loi wax dafa daal di ñëw ñu wooy magu ki nga xam ne moom la ñu rey mooy Djibi Sadio ak Djibi Sadio ñu dem wooy ki nga xam ne mooy sàngkatu néew bi mu jël ki nga xam ne ñoom leer leen ni awa moo ko dóor kuur ba rey ko ñu jël ko dem sàng ko ci woote waa dëkk ba ne leen diw gaañu na ñu dem suul ko foog na yëf yi dafay nekk secret tax na gendarmerie brigade territoriale bu gendarmerie bi nga xam ne moo nekk saint ñoom bi ñu amee seen renseignement dañu daal di wàcc ci dëkk bi automatiquement ñu teg loxo ki nga xam ne mooy Djibi Sadio moo di jëkkëru a Macké waaye teg loxo ki nga xam ne mooy infirmier bi di Barthélemy Kadiali yi ak ki nga xam ne mooy Abdou Seydi bi nga xam ne jàngalukatu alxuraan la foofu te moom mooy sànkatu néew bi donc waxtu wii may wax ak yéen ah, kii di ah, ah, yi Barthélemy Kadiali Mansali kii di Abdou Seydi ak kii di saa Sadio muy jëkkëru soxna si aw Awa Maké ñetti ñooñu ñu ngi ci loxol yoon gendarmerie brigade territoriale bu Sambine teg na leen ñu defeere leen ci parquet bi pour non dénonciation de crime maanaam gis nga njombe nit bu ñu rey ngeen ngeen dëpp dëppal ko ba nëbb ko soxna si nag kenn xamul euh, na mu yëgee yëf yi na mu yëgee ni gendarmerie na fi wàcc si en tout cas bi mu reyee ki nga xam ne mooy Amadou Sadio moom daaw na fàq na ba bés bii ni tey ah, soxna sii di Awa Mbacké te dëkk Limaan Limaan tamit mu benn dëkk bu nekk wetu Samin ah, diggante Samin ak Simbandi Limaan a foofu la nekk daw na nee na pëndëng ba léegi nekk fugitif au bi nga xam ne moom la ñuy wax ak yéen mais surtout bu ñu delloosee ci fait divers bi mooy nit ki bu mu def njombeem ba mu dugal la si nga na ca yàqule parce que moom mi nga xam ne moo def njombe bi waxtu bi moom dem na yoonam kenn gisi ko mais ki nga xam ne mooy borom këram te moom rakkam la rey ki nga xam ne mooy infirmier bi xam ne amaloon na njariñ dëkk ba yëpp ak ki nga xam ne mooy euh, euh, euh, jàngalekatu alxuraan bi te muy sàngkat néew ba ca dëkk ba ñoom ñett ñooñu ñu ngi ci kaso ba alors que moom bi nga xam ne awa Mbacké bi def fii moom daw na dem na yoonam kenn mënu koo teg bët ba tey dans la dinañu dénoncer euh, meurtre bi nga xam ne def nañ ko kii di Bassirou Mbaye Bassirou mbay mu di jàngalekat bu nekk école élémentaire euh, Théophile Turpin bu nekk Ndiafaat wetu Kaolack yéeg ngeen ni depuis le 22 23 décembre la jote woon ak benn xale bu góor boo xam ne doomu ki ko loon la njaatigeem ba nekk fële ca Ndiafaat gannaaw bi mu ko dóoree ay coups daw na. Ah, ki nga xam ne mooy Bassirou Mbaye indiwoon nañ koo Kaolack avant ñu ko transféré indi ko hôpital bu Fann yàlla suñu borom moom na bàkkanam foofu tax na enseignants yi yëpp ñu ngi génn ci mbedd mi di xeex di ñaawtu di ñaawlu li nga xam ne mooy faat bi nga xam ne faat nañ ko seeni eh, eh, collègue boobu di Bassirou Mbaye ñu ñaan suñu borom subhanahu wa mu xare ko ci àddina yu gën a kawe ñu fàttali leen ni Bassirou Mbaye c'est

Euh, ñi nga xam ne ñooy avocat ñoom arrêté wuñu euh, démb benn texte dafa en circulation bi nga xam gannaaw ay mbokkam gannaaw ay avocat gannaaw am ni yi sénégalais arrêté nga de la faim na woon pour arrêté wax li nga ne ko mu arrêté lépp li nga wax ci force de sécurité et de défense yi waxati lenn ci li

Euh, dossier Pape Alé Niang muy Mamadou Seck bu deuxième cabinet xamal na ne instruction bi pare na ci clôturé na ko mu di loo xam ne euh, euh, lu doy waar la même bu fekkee ni lu ñu bëggoon mooy ñu am benn issue lii yëpp mu jeex comme ni ko Pape Alé bëggee Sénégal yëpp bëggee ko noonu lii yëpp mu jeex ndaxte bu leen fàttali bu fekkee ne am acte d' instruction bi ñu posé benn acte cassé la mooy keroog audition.

ñu waxtaane ko am nañu ñetti fan pour ñu def seeni observation te gannaaw sax da ngay daal di delloo ki nga xam ne muy procureur de la république bu procureur xoolee moom it am na presque quinze jours boo xam ne ñoom dañuy xool ndax dañ koy renvoyer en jugement wala dinañ ci dañ koy jox liberté mais li ci avocat yi bëgg encore dellu soit mooy nañ ko may bàyyi ndëgandiku comme ni ko Sénégal yëpp ñaane li ko mooy ñu xamal leen ni bu ko ci dara fekkee responsabilité au gouvernement dafay engagé responsabilité au sénégalais engagé encore sénégalais demander que nous liberté provisoire demander à ce que nous li nga procédure arrêté Sénégal ça sera l'opportunité aussi demander la libération tous les détenus politiques ñoom euh, Papito Kara ñoom euh, Ousmane Diagne professeur Cheikh Omar Diagne wax dëgg yàlla dañ koy wax den soit tout le temps professeur Cheikh Omar Diagne Abdou Karim Gueye ñooñu waxuñu lii waxuñu fii loo xam ne borom euh, ndey bi léegi waxu ko parce que li ñu wax dañu répété textuellement li nga xam ne oustaz Alioune Badara Ndao moo ko fi waxoon yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jox ci àjjana yu gën a kawe moo wax acte yi nga xam ne subiroon na ko en sa détention moom la ñuy répété mais gis nga waa Kër Ñàkk Jàmm ñu ngi dans le logique na depuis presque ñu ngi dugg ci cinq mois léegi su ma fàttewut ki nga xam ne mooy euh, Abdou Karim Gueye ak ki nga xam ne mooy euh, professeur Cheikh Omar Diagne ñu ngi denc boo xam ne kenn mun ko expliquer te it ce sera l'occasion it ñëpp ñi nga xam ne muy ñu jàppoon leen ci force spéciale nit ñi parfois actualité dafay bari tellement ba dañ leen di fàtte ñu ngi ci kaso bi ci loo xam ne teguñu ko ci dara lu dul monter ay coup monter ay complot xool kër neex jël leen dugal leen ci kaso yi pendant ce temps euh, démb euh, am na ñaar ci ay activiste ba ñett sax mu di euh, Bayna Gueye bu nga xam ne ñu nitu dëgg original la bokk ki nga xam ne mooy Ousmane sar bokk ci mouvement nitu dëgg ak ki nga xam ne mooy Ahmad euh, Sarang Diallo ñetti ñooñu xam nañ ni depuis euh, bi nga xam ne ñu ngi jàpp ñi depuis affaire force spéciale ba ñu ñëw ba ci Karim Karim Gueye xorom xàq ba ñuy dellu si di yegg tey ci affaire Pape Alé Niang ñoom lu ñuy xeex tout temps mooy qu'on fin à détention arbitraire euh, de de de citoyens sénégalais parce que tout simplement. tout simplement ànduñu ak gouvernement bi tax na ñoom démb wàccaat na fi nga xam ne gannaaw premier ministre Ahmadou Ba doon recevoir li nga xam ne mooy société civile ñoom ñëwoon nañ fa taxaw ci mbedd bi di yuuxu libéré Pape Alé libéré Pape Alé waaye lan ca gis mooy police ñëw fekk leen fa jël leen yóbbu leen en garde à vue donc waxtu may waxtu wii may wax ak yéen depuis démb kii di Bayna Gueye kii di Ousmane Sarr kii di Ahmad Sarang Diallo ñoomit tek nañ leen loxo mu nar encore allongé waat liste nit ñi nga xam ne jàppewuñu leen dara lu dul wutewu gis-gis ak ñi nga xam ne euh, ñooy ñu nànk nguur gi parce que la liberté d'expression mu di loo xam ne constitution moo ko reconnaître mais ñetti ñooñu tey tere nañ leen na bënuñ leen jànd bi parce que nee nañu trouble à l'ordre public lañ def waaye it ils ont dañu bokk ci euh, manifestation boo xam ne kenn autorisé euh, en gros loolu mooy situation wu ñooñu ñu leen libérer wala euh, état bi dina maintenir en détention mais lu ci mënti nous mu ngi dossier bi a euh, bi pour dénoncer ko violence bi nga depuis quelques jours ñu ngi depuis deux jours pratiquement une partie en tout cas ay étudiants ñi nga xam ne nee nañu dañu amoon ay logement bu nekk fii ci Dakar boo xam ne ancien maire bi di euh, Baldé doon na leen ko fayal ki nga xam ne mooy maire Ziguinchor bu tey bu Ousmane Sonko fas yéene wul renouveler contrat boobu tax na xale yooyu génn nañu ci mbedd bi taal nañu pono waaye it euh, fexe nañu ba déloger yenn élèves yoo xam ne dañ doon jàng parmi ñoom amoon na ñaar ba ñetti ñoo xam ne euh, wala ñeent ñoo xam ne police tegoon na leen loxo waaye finalement libéré nañ leen alors que ñu ngi xalaatoon ni les choses vont se calmer yenn étudiants fii ci Dakar mais ñeneen encore ñu nekk si Ziguinchor ñu ngi promettre ni tant que fayuñu leen logement yoo xam ne euh, ancienne mairie yi moo leen ko jëloon en charge seen xeex dafay daal di continuer. dernier point bi nga xam ne waroon naa ko ak yéen mooy dégg ngeen ki nga xam ne mooy dernière. Euh, euh, dernière euh, audio bi nga xamné ne doxul diggante Baye MC ak ki nga xamné ne mooy comme une litanie ça revient toujours euh, li mo doon waxtan ak Adji Sarr mooy naka la ñuy fexé ba ñu ma réew mi dégg ngeen ko bi muy wax ak Baye Baye MC nee na ko li mu bëgg moy ñu génné ma réew mi man Amérique laay dem parce que dem Amérique moo nekk ci boppu ki nga xam ne mooy Adji Sarr taxoon na de plus en plus da ngeen di euh, da di comprendre termes yi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee pour naka la mën taxaw reconnaître devant tous les Sénégalais ne leen tous les Sénégalais ne leen li nga xam ne man maa ko waxoon dañ ma nax dugaluma ci loolu li may def mooy maa ngi baalo àq ñun wax nañ ko te loolu la ñu gëm loolu mooy yoon bu gën a gaaw.

ne leen tàppale la ne leen complot la ne leen dañ maa parce que jox naa leen témoignage ñu bëri mais am na it ay témoignage yu nit yoo xam ne joxaguma leen ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne dañ doon waxtaan ak Adji Sarr mu wax leen ni lii complot la mu avoué leen clairement ne complot la mais moom moo fa ñëwaloon boppam bu ñëwuloon lii yëpp du am loolu la Adji Sarr di wax mais quant waxu euh, waxu viol ak yooyu moom wax na ñëpp. lii loolu complot la léegi nag complot boobu mu mën a génn ci complot boobu lay demander ay garantie garantie boobu nag dégg ko bi mu gannaaw bi wax naa ne man ak ki nga xam ne mooy kii ànd ak moom da koy jàppale ñu ñaan ma mu dimbali leen ci loolu dégg ko encore loolu la nekk di wax ak Baye MC naan ko man Amérique laay dem te ñëpp xam nañ ni dama war a dem Amérique parce que pour moom à la kulli xaal il faut mu dem Amérique ça fait partie des termes du contrat bi nga xam ne waa kër ñàkk jàmm ko doon def loo joué le rôle boobu loolu lañ sant gëm gëm ni dafa dem Amérique la a def pour mu dem Amérique loolu ne ci boppam donc tax na mënut reculer def dara de sorte pour ñu chaque jour chaque audio bu chaque information boo xam ni routine, euh, routine, rëcce na fële nga xam ne mooy bureau doyen des juges ba tàbbu ci voie publique bi di ngeen ni la voie du complot est la seule voie bi nga xam ne moo fi nekk dara amut viol amul agression sexuelle amut euh, euh, proxénétisme bi ñu toppee ndey xat yi amut dara amut lu ci nekk rek mooy ay nit ñoo xam ñu complot complot ne ko dinañ la jox lii dinañ la jox lii dinañ la jox lii boo defee lii moom def li nga na ni conséquences ay sénégalais personnes sur le champ am si encore ñu mais xalaat naa ni bu complot avec répression ba ci am ay nit ñu impunité

parce que ñun waxoon nañ leen ko bu yàgg amoon nañ avance si yéen waxoon nañ leen lii xew lii xew ni yëpp tey waxoon nañ leen ko donc bu fekkee yegg nañ fi tey xam nañ ni lii caaxaan na bu ñu nangooti benn doomu Sénégal loru waat bu ñu nanguwaat benn doomu Sénégal xosu waat bu ñu nanguwaat benn doomu Sénégal ñu dugalaat ko ci kaso bi ci loo xam ne fenn la ak i tàppale te muy fenn ki tàppale boo xam ne bu ngeen delluwaat bu yàgg lañ leen waxoon nii lii nii la parce que xamoon nañ ni nii lay

ku ko bëgg a baal nga baal ko mais au moins dina mën a sauver ay sénégalais dina mën a sauver Sénégal te duñu dem ci ay affrontement yi nga xam ne waa kër ñàkk jàmm ñun ñu koy parce que dossier boo xam ne wax dëgg yàlla ki nga xamné mo porter plainte mom ci boppam ñoo wax ne limay wax dara du ci dëkk pour juge ba nga xamné mo bëgg continuer poursuivre loolu ba di ko yóbbu tribunal ba di ko yóbbu en procès defe ni mom projet ak i dessinam pour le Sénégal mënul la bokk ak bës gis-gisu Sénégalais yi mais nag lañ leen waxoon démb moom lañ leen di waxaat encore ba dara amuñu dara ba dara booloy jeex tax na euh, bu ndaw laay def euh, ki nga xam ne mooy sama sama sama mbokk bi kii di moomu moomoo jaxumpa parce que mu moomoo jaxumpa mi nga xam ne moo taxawoon mooy journaliste ba nekkoon fële leeral waaw am na nag am na sant mais santam boobu nag dama ko nangul jox ko jaxumpa waaw moom mi taxoon ne leen eh, am na vidéo original boo xam ne maa ko gis Ousmane Sonko di dugg ci néeg beeg wax ay waxi tàmbaleem moomu tey ci fitna la nekk parce que dégg nañu ni ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko dugaloon ci waxi kasaw kasaw bi wax naka sa kandang bi ñooñu tey ñoo dellu ci ginnaaw ñoo dellu ci ginnaaw di ko fitnaal ñoo dellu gën diko diko diko ko di ba waxtu bii may wax ak yéen moomu génn na ndakaaru momu dawna dem fi nga xam euh moy moy dëkkam parce que ñi nga xam dañ ko woné ko yaa doon wax ni euh, yaa doon wax ni da nga yor vidéo les vidéo boobu lañu bëgg nga won ñu proposé ko nak dégg naa xaalis bu bari bari bari ay parce que 100 millions pour vidéo bi nga xam ne nee na moom moo ko gis moom moo ci teg loxoom moom moo neewoon na leen encore ko yaayam donc vidéo boobu la ko gars yi laaj ko parce que gars yi ñoom ñi nga xam ne ñoo tëgg affaire bi ñoom xam nañ ni vidéo amul dara amul dëgg la moom moo moom moo Cissé la mais nangu nañu Cissé bi dëgg santal ko wala jaxate bu ko defee euh, moo gën ci moom que parce que Cissé man ni ngi móori la am bi ñu leen taxawaay bi ñu waxtu wi ñu toll génn Ndakaaru ci lu ñuy yëg ah, mu ngi ragal ak ay mbokkam ñu ngi ragal gars yi faat ko ci li mu wax parce que vidéo boobu lañ koy mooy vidéo mu taxaw tàkk fitam taxaw na sénégalais yi man maa ko gis maa ko maa ko moom ñi koy fitnaal nag wax ji dafay leer du waa kër Ousmane Sonko ñi koy fitnaal mooy waa kër ñàkk jàmm kon ñii nga xam ne ñoo doon menacé docteur Alfousseynou Gaye tey ñu retourné contre moomu parce que dañu <laughs> dañu dégg moomu ñu gëm moomoo woo moomoo wane ko indil ñu vidéo bi ñoo am lu ñu la jox mais comme amul dara ba dara boo jeex xam naa da doon jéem def affaire Adji Sarr yooyu gars yi fitna bi am doole ci moom finalement fu nekk nii euh, moomoo jaxum ba daw na euh, ñu ñaanal ko yàlla suñu borom mu sàmm ko euh, sàmm njabootam te fàttali leen ni li nga xam ne dafa leeruloon ci bopp nit ñi moo taxoon fitna bu lépp leeree tey dañu war a dem ci jàmm. ben affaire bi moy avocat bi maître El Hadj Diouf kenn déggatu ko fenn euh, foog na ni goudi yi ñu tollu am na yeneen yu mu tal yu dul ay wax yoo xam Ousmane Sonko wala ay waxi Adji Sarr parce que am na yeneen encore yoo xam ne yooyu lay gérer bon ma fàttaliwaat ko encore parce que gëj ko dégg mu ciy wax waxu kër googu mu naan këram bi ngeen bi ay bandi demoon pour taal kër googu maître El Hadj Diouf moomu ko Ousmane Diédhiou moomu këram ba tey yàqu-yàqu yu ñu ci kër yi mais it nee na ay boru lu yoo xam ne El Hadj Diouf yoral na ko ngir yàlla Maître El Hadj ak képp ku xam Maître El Hadj Diouf leen ma ko yàlla mu fay xaalisu jàmbur mu fay Ousmane Diédhiou ci këram yi nga xam ne yàqoon na ko te soxnaam si dëkkoon ci kër gi mbokk yi en loolu mooy li ma bëggoon a partagé tey ak yéen xamal leen ni euh, plainte Ousmane Sonko déposé na ko it contre Mamour Diallo contre Adji Sarr contre Sidi Ahmed May contre eh, avocat yi ñaari avocat yi moy Jordan ak ki nga xamné moy euh, Gabi waye xamali nit amna ben procédure bo xamné batona bi moko moko topé mettre à jour ci lu bari donc eh, top lu ko jarut ba lu ko jar fekk la ci amna na leen loo xam ne gën bokki ma ngi leen di ñaanal jamm ñu may laajaat moomu mu def mu dafa katch dafa taxaw ci kanamu Sénégal yépp wax leen am na lu xew diggante ma euh, diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr am na vidéo bi nga xam ne moom gisoon na ko te amoon na vidéo bi te wax na Sénégal yëpp ne vidéo bi moom won na ko yaayam vidéo boobu am na lu ci nekk kon Adji Sarr Sonko wax jooju dugg na ci nopp waa kër ñàkk jàmm ñi nga xam ne ñoo tëgg seen complot woo nañu moom proposé ba xaalis bu bari ci information yu ne am euh, chèque bi mat na presque cent ne ko naa leen jox vidéo bi dañ ci bëgg a dagg lu tuuti rek lu wane Ousmane Sonko ak Adji Sarr ci benn néeg ñuy dugg si jacuzzi wala yu mel noonu mais nag comme moomu da doon waxantu rek amu ci dara ñooñu woo nañ ko finalement bi ñu ko proposé xaalis génnewul dara léegi fitnaal lañ koy def nee ko nag boo génnewul vidéo bi ñu def say bakkan waxtu bii ñu toll nag dégg naa moomu génn na dem na seen dëkk di jéem foofu waaye nag ñu di sama njaboot yi te xamal ñi nga xam ne euh, ñoo koy menace bu fekkee ne menace bi est réel ni kii on est dans une république bu ñu d'accordul ak nit am na yoon yu mën a jaar yu bokkul ak intimider wala di menacer faat bakkan mais war leen ni yëpp ni euh, fitna kenn ko watal parce que bu duggee sa kër da ngay mu génn te du génn waaw lii mooy euh, mbokk yi liñ leen bëggoon a indil. Euh, ma leen ñaanal jàmm au nom de toute l'équipe de Kéwoulo ci at bi nga xam ne moom lañu dugg mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV International